léegi suñu ko <laughs> dernière partie euh, émission bi nga xam ne moom leen jagleel euh, politique man j'aime pas du tout parler de politique surtout su ma nekkee avec euh, Pa Assane dama bëgg ñu wax euh, voilà si yeneen thèmes yoo xam ne rek dina mën a changer vécu sénégalais ak éveiller aussi les consciences mais mais il faut ñu wax si Pa Assane politique bi au Sénégal ba tey quatorzième législature bi ak coow leeg xëccoo beeg ñu gis ne la présidence de l'Assemblée nationale fu mu toll nii indi na divergence bu doy waar euh, si biir euh, làngum politique rawatina euh, si ñi nga xam ne ñoo féetoo si opposition bi pour citer Yewwi Askan Wi gis nga Ahmed Aïdara il essaie de se positionner voilà le candidat du Parti démocratique sénégalais PDS aussi ñuy annoncer sax six groupe parlementaires par Assane. alors moi je dañu toll ci niveau boo xam bon politique bi aussi il faut qu'on en parle parce que <laughs> politique bi malheureusement ñoom ñooy diriger élection la ñuy def fan leen ñoom ñu jël di signer ay accords et cetera loolu aussi defe naa ci wàllu organisation lu lu lu lu war a la mais disons une chose simple opposition moom benn kàddu la ma say wax xulil mhm. Yewwi Askan Wi la xaw ma ak int ak wàllu bu ñu fi sàgganee ba nekk ci ay xëccoo ba sénégalais yi baax man mii di déglu man mii di wax ak aw xam lu may def gàddu may bagage ne ne président Macky Sall ña mu àndal ne leen maa ngi de. boobaa di nga rus de pas. déedéet du ma rus. ak ma am ful rus. <laughs> wuy ma maay ànd ak ñoom ne leen ne yéen ginnaaw bëggu leen baax ñun dañoo wuti fa baax ginnaaw laaj ngeen ne yéen ak waa APR yéen a nuroo waa léegi bu dee da ngeen nuroo nag man ba ma wuti fa source ba ne muy APR ci moom parce que boobaa yeewi askan wi ak ak wàllu dootuma leen wooyee yeewi askan wàllu boobaa dama leen wooyee APR en prolongement yéen yaakaar ngeen ni sénégalais mën nañu xeex ba toll fi ay nit di ko jël di ko sànni si àll bi Mm -hmm. je pense qu'ils sont conscients je pense qu'ils ne sont pas euh, voilà ay nit yu réfléchir ñoo fa ne ay kilifa yu mag quand je regarde le président de la conférence des leaders Khalifa Ababacar Sall qui fait un boulot immense mm -hmm. que les Sénégalais ignorent mm Sonko qui a fait une campagne merveilleuse uh ak tous les leaders Habib Sy euh, euh des sachants yu nekk foofu mm. waaw ñooñu yaakaar nga ni war nañ mën a xeex ba toll foofu di jàkkaarloog Sénégal yi naan leen noo xam nga way man dama bëgg post bi kii naan dama post bi le cas Ahmed Aïdara a été réglé déglu ma la. Ahmed Aïdara. laisse-moi te dire léegi toog na. non mais ma wax <laughs> Ahmed y chose il faut comprendre une am na ku ma woo ne ma mais waxtaanal sa waa ji ah, ma ne ma ne ko ah. sëñ xam lu ma ko tontu ma ne ko sëñ bi danoo nekk ci réew boo xam ne ka mu neex u am bëgg-bëgg bàyyi leen loolu la chose. Ahmed a travaillé avec une coalition Yewwi Askan Wi. yàlla defal ko sutura mais mais on aime bien Ahmed Aïdara nag sa sa gaañ la suñu gaañ la waaye est-ce qu'il est assez ma jëm tu peux pas m'interpeller tout bout de champ laisse-moi terminer laisse-moi que sinon je perds le fil et je je dafay je parle pas d'Ahmed en tant qu'ami je t'explique pour nga comprendre information nga soxla. je te dis le cas est réglé pourquoi le cas est réglé. kaay ma wax la balaa ngay balaa ngay compter da nga bëri histoire da nga nekk di wax moi je vais te relancer loolu mënoo ko. loolu la. loolu du relance la la xam nga luy relance. fii di may jàngal ma lan mooy relance. ah non parce que la mais foog ma lay dagg. non di lay poser question mais tàmbalee gu ma expliqué nga dagg ma. bu ma bëggee ko poser question du ma poser laaj nga ma mënoo laaj ma tàmbalee nga dagg <laughs> quand même je dis une chose que yow li nga nekk sama gaan moo tax ma la koy def <laughs> déglu ma. wala si. waaw la daggati émission bi la mujjee wax rek. non non <laughs> yàq samay nelaw kii ba pare bëgg ma sonal ak ay dagg ak ay kii daa maa déglu de baa ma déglu xam noo def. waaw waaw mu woo madame ne ko kaa lijjanti si lii <laughs> déglu ma wax pourquoi parce que <laughs> Ahmed déggoon nga fii dafa naroon def benn déclaration. déggoon nga ko lan moo ko ci dindi. je sais pas moom ci boppam toog na wax ko. Mhm. Ahmed euh, Khalifa Ababacar moo ko waxtaan ak moom mu génn si lool mu bàyyi moom mu pare ne woo na Ousmane Sonko waxtaan nañ si benn affaire laa lay wax. Mhm. nit ka nekk si àdduna. moi j'adore les gens ambitieux Ahmed. wax naa ko keroog il y a quinze ans xalaatoo nekk maire. Mm. tu l'es il y a quinze ans xalaatoo nekk député tu l'es ma war a gën a sant yàlla xulil. Mm. mu ne ma man ma ne ko santal sa borom. Mm. leneen loo si teg à le plus mais au delà. man bu ma neexee ma ne xulil yow man bu ma taxee fii daan ne waaw dama bëgg dëkk pale bi fi mu nekk dama am envie. ñu dindi pale bi ma tabax fa sama kër parce que foofu daf ma neex quoi vue de mer nit mën na maa bañal lool xanaa du bëgg-bëgg doon waaye ñu ne la li nga bëgg mënta ne day am. aujourd'hui sur le cas Ahmed li indi ambition ba mu am mooy ñoom dañoo waxtaanoon ci seen biir ne bu ñu demee ba benn fay des ca leader yi militant du jiitu leader kon nañ leen jiital leader ñoom noonu la ñu d'accord mm. bu ñu demee nag ba nga xam ne ñeneen ñi dañ leen a moom rek moo fa des mu daal di am envie daal di proposé wu loolu c'est libre encore que officiellement c'est pas annoncé mm. dégg-dégg la waxtaan la bëgg-bëgg la waaw léegi foofu ay kilifa yu mat kilifa nekk fa. Mhm. boo fekkee am nga bëgg-bëgg ba la ne lii ala palaatab ganaar xulil wala palaatab xulil sëdd ba baax ba la ko tegalee nii ñu ne la eh bal laal de euh, Modou Diagne ka fa teg xulil nga xam ne alalu Modou Diagne la bu fekkee du sa alal ñu leeral ñu ne la noo bàyyil nga bàyyi nit dafa am kilifa Ahmed am na kilifa. et je pense qu'il saura raison garder. Mhm. tout comme ñeneen ñi li am solo li maa wax man mooy yeewi askan wi ak wàllu bu leen kenn dégg bis bu leen déggee. bu boobaa moom bu yóbboo ñu teg seen ay bagages rek. Thierno Bocoum parle de partage du gâteau dafa mel ni comme ils sont en train de donner raison aussi à Thierno Bocoum. aussi non non non Ndiab Ndiab y a une chose ce en réel yem ci lan des informations qui sortent comme ça. ah même ma wax la même ma wax la rek. mais y' information ouais. information journaliste nga journaliste la xam nga ne carrément c'est des informations euh, xam nga xam nga dama la ne. yeewi askan wi ak wàllu am na taxawaay boo xam bu ñu ko amee nit ñi da leen fii teg loola la yow moom da ngay rus moom. waaw non non non mënuma ci xeex principe boo doon rus ma rus ci mbiram Ablaye Wade xulil rus du weesu président Macky Sall bii nga rey sa bopp parce que dañ ko jëlee assemblée nga ne du yoon xataraayu wax lu ne xulil par principe. boobu temps réseaux sociaux yi melu nii bu meloon noonu nga xam li ñu doon def lan la ñu ñëw ba toll fii président Ablaye Wade dem ma toog bis toogaat daal dina rëccu naa lu président Ablaye doon demee ndax li fi ne musiba la loolu mooy rus. Mhm. loolu mooy gàcca aujourd'hui Yewwi Askan Wi Wallu population bi ñu ngi leen di xaar fa fa kawe. Mhm. xam mooy lan yéen xeex ba toll fii ne mën ngeen wane leen ko ci ngor fulla ak fayda li nga xam ne ñu ngi kaa wax. Tcherno Bokoum a été l'un des meilleurs députés de l'Assemblée nationale du Sénégal. J'ai juste un petit brin de mal. Pourquoi parce que Tcherno bu fekkoon jege naa ko ñuy toog di waxtaan 24 heures sur 24 dinaa ne ko Tcherno bu la kenn déggee sens bi parce que dama am impression que moom dafa am problème personnel ak waa Yewwi Askan Wi et c'est malheureux en passant ñi nga xam ne ñoo fi nekk nag di nguurab Sénégal. nga xam ne léeg-léeg dañoo ruube ndax dañuy dox ci politique politicienne yenn information yi ñoo kaa jàllale. doo wax musiba bi nekk Benno Bokk Yaakaar pëcc xaw ba fa am. Ah, man kay nee la si am nee naa groupe euh, parlementaire. non je parle même de groupe parlementaire je dis musiba ba am benn bokk yaakaar lu tax presse sénégalaise duñ ko bind. ñoom daal côté yeew yi wala rek la bind problème lu bind moom ne benn bokk yaakaar y' problème entre Amadou Ba Mimi ak kan ak kan ak kan sa venu problème la. na loolu bu ko bind moom boo nekkatul journaliste rek arrête de